ba di sama manager donc dafa joué ci morceau boobu bu baax ak yeneen yoo xamante ne léegi ngeen dégg ko. mais parce que morceau bi dama cee Sëriñ Tuuba béggal nga yóoneen ba alxuraan nee na yow yaay soppem ba Sëriñ Tuuba béggal na yóoneen ba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 yow yaa di soppe mbaa. macha allah est euh, dinañ xaar clip bi avant euh, màggal. clip bi suba nga jot si. <laughs> clip ba pare na. clip ba ci kàttanu sunu borom kay moom. Mm-hmm. ah pare na moom. Euh, nga nekk taalibe ba tey rek dañuy dem si actualité après mu tàggatoo nga wax noo gisee maître El Hadj Diouf wax mu wax.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 juróom-ñaari mètre rek kay war ci yow kenn du paas paas oto na bàyyi faal yaay dajale paas yóbbu la mètre nag wax jooju da tontu avant moom muy wax parce que dama naan koo xamante ni daal nga màggal si te kenn yëgul ni yaa ngi Tuuba ku daan ñëw te kenn yëgul ni màggal si nga boo toogee lu mu ñu mën ngaa bañ a annoncé sa toog ndax yow sa ñëw kenn daanu ko yëg kenn du la escorté kenn du la accompagner booy dugg ci kër sëriñ ci dangay ngay rang comme ñëpp yow doo ku ñuy xaalil ngay dugg yow kenn du la xaalil buntu ngay ziar xalif général. kan kilifa. lu ana lan mooy wane kilifaam. non mais boo tey rek mooy kilifa. non kaay ma wax la kilifa. Mhm. kilifa duñ léegi lu ñaaw sa ñaata yoon nga ko dégg muy saaga kon ko ana kilifa gi ñaata yoon nga ko dégg muy xaste ana kilifa gi mu osé taxaw tey ne du dem màggal ndax lan korona ñun sëriñ Touba moo nu gënal korona moo nu gënal sunu bàq ne bëgguñu si dara kon moom daray kilifa nekkul ci moom ndax kilifa di nga jommale sa bopp di dagg ay saaga ndey ba àddina ñëpp jot si. kilifa di nga jommale sax ñu lay dégg ci yu kenn xamul kon dara kilifa nekkul ci moom bu màggal jotee fa gaa yi di buuxante pour àgg moom bu sàgganee sax buuxante ka du ca am ndax maanaam amul daraja boo xamante ne sax war na mën a àgg fu ñuy buuxantee man gisuma kilif teefam xam nga ñan ñooy kilifa soo ko bëggee mooy ñi nga xam ne boo réeree ñu gindi la boo xamul ñu xamal la boo juumee ñu jubbanti la nga xamal la lu ñaaw war la ko mën a wax toog ci nga am ñu booleex la ñu am jox laax nga am nga booleex li nga am yaa ngi dégg kilifa ci loolu lay dox waaye ba pare di waramaal sëriñ tubaa man de jomm naa taxaw fii wax ma la sax fu kenn nekkul ma naan du màggali sama ngor mayu ko ak li ma sëñ tubaa defal may laam laame ndax dinaa demam déet wallaay ndokk na toog El Hadj Diouf du la wax sax maître El Hadj toogal ndax sag màggal boo ñëwee ñoo lay bernde sag alal du dem suñu màggal ñoo lay bernde kon nag boo ñëwee da ñuy wàññil coono donc voilà. merci beaucoup dañuy bàyyi nga wax projet yi ak nga joxe rendez-vous bi. waaw projet yi moom xam nga <laughs> man xool bee jóg ndax suñu tubaab moom boo ko rek. maa ah, nga laal ci jëm ci moom rek. moom dañuy dañuy daal di yëngu mais projet yi nag euh, ñoo ngi préparé euh, yu bari comme li may wax rek euh, clip bi ci kàttanu suñu borom. fan lañ kar fépp Sénégal set ak Dakar net fépp télé yeex rajo yeex na ko ñëpp kar ndaxte ñu ngi waajal ay projet yoo xamante ni comme da gaa comme gaa yi déconfiné nañ ci li ñu wax. Mm-hmm. donc. Euh, <laughs> waaw non tijji na tijji tijji nañu quoi parce que ñun lañ tëjoon mais ñoom ñu ngi doon dox seeni soxla quoi. waaw tijji nañ ñu donc euh, dinañu commencer. incha allah pour le moment ñu ngi studio di defar di préparer yenn morceaux yi. parce que dugal nañ sëñ tubaab bi te Masaalikul Jinaan baa ngi ñëw. donc dinañ ko dégg dans la semaine. voilà bu ñu jógee ci loolu mën a song yeneen yi si des yi ci kanam. incha allah di joxaat nit ñi rendez-vous nindi ci màggal gi. nee naa leen ku ne xam na kër sëñ Abdou Karim ndindi foo rombee kër sëñ Abdou Karim jëlal sa gauche tali bi dangay daw ba jot tableau bi sa ndeyjoor ndindi aafiya gi bi ñu am mu ngi am photo sëñ Fallou photo sëñ Baara photo sëñ aafiya bedd boobu ngay dox ba ci kër sëñ aafiya màggal gaa ngi noonu nag maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn fu soppee nekk rek xamal ni maa ngi lay xaar ndindi ci màggal gi kontaan